واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم ورحمة الله تعالى وبركاته نغني بوكي في تاو دي زيارة بباخ بعد سيارة سنسيغنا mboolem mboolem soxna yi teew ci jataay bu tedd di bëgg a gaaral kon ab yaay ñuy defal ngeen ndokkale ko sëriñ bi radiyallahu anhu ñu ko defal ci al baxru waafiq tàmbale woon ko ci masal taala baadi soxara bismillahi arrahmani irrahim layta shi'ri layla bu'ayda هل يعود الوصال أم لا تلاقي ليت شعري ليلى بعيد الفراق هل يعود الوصال أم لا تلاقي نار ود تأججت في ضلوعي اشتياقا والدمع فوق المآقي ليجوجي برمي لمح فإني la asiirul hawa wadaada ishtiyaaqin wasaraaxi fi lwasli halli bi waslin alla qaydi yufakku inda alcinaaqi yaa mucannan bixubbi layla fa rifqan wacduha kasaraabi daatan faaqi balha can dikriha wa min lilxadiimi dalika bnu jala shahiyu lmadaaqi huwa axla min aryili luqalaai siyaamun minhu muxjilaatu lxilaaqi axmadu lgaysu lilwara wahuwa faxri shayyada ddiina rahma ahli nifaaqi yaa lahu min abdin xadimin zabrin saana rukna alhuda bi gayri shiqaaqi إنما الأولياء نسب نجوم أحمد الشمس حاز كل خلاق وكلام الجنان فوق الذي كان يخط اليراع في الأوراق آخر القول صل ربي على من قد سرى بالأمين فوق البراق مع لال الكرام أهل ودادي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 Euh, kon bu ko defee xam naa dañuy jox sëriñ euh, nga sama boo ko defee mu dalal sëriñ Ibrahima Khalil at-Tunkari incha allah moom itam bokk ci waykat yi nga xam ne dañuy faral di participer ci diwaan bi nga xam ne mooy diwaan Duru Nazim niñ ko xamee nag bayit yi nga xam dañ koy participer ci diwaan bi lu ci ëpp dañ koy tënk ci fukk bayit ak ñaar donte am na ñoo xam ne léeg-léegaa nag ñu ëppal ay bayit waaye bu fekkee bayit la yoo xam ne yëpp rafet na te neexut a wàññi itam dañ koy bàyyi noonu waaye lu ci ëpp fukki bayit ak ñaar lay doon kon bu ko defee sëñ Maamun sama dañ lay jox nga dalal sëñ Ibrahima Xalil ak Tunkari mi nga xam ne moo ci topp incha allah. asalaamaaleykum. jërëjëf sëñ Seexuna jërëjëf sëñ Abdul Ahad mi nga xam ne moom moo wàcc léegi euh, sëñ Ibrahima Xalil euh, bismillah تفضل ah, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbokk yëpp leen ziyaara di nuyu kilifa yi fi teew yëpp di ci jiital Serigne Cheikhouna mi nga xam ne mooy almunasiqul am eh, li haadihi al majmua muy diwaanu Duri Nasim di leen ndokkeel bu baax ci munaasab bi nga xam ne organisé nañ ko eh, kon ñu dugg ci xasida gi nga xam ne rek moom lañu musaarako ci diwaan bi <coughs> mu ñëw ci baxru ramal xaaba xarnun baxdama naxwa alkarimi aaba cabdan xaadiman xayra alalimi xaaba xarnun baxdama naxwa alkarimi aaba cabdan xaadiman xayra alanimi mi'atun min baxdihi xallat walakin fi duhurin amruhu misla nujumi مئة من بعده حلت ولكن في ظهور أمره مثل النجوم fadluhu fi lxalqi yasdaadu intishaaran kulla waxtin bizdiyaadin mustadiimi fadluhu fi lxalqi yasdaadu intishaaran kulla waxtin bizdiyaadin mustadiimi kulla yawmin fiihi yaxdi llaahu xawman faxtawow min xujazilaati nnaciimi kulla yawmin fiihi yaxdi llaahu xawman faxtawow min xujazilaati nnaciimi من به يحوي البرايا من عطايا ذي المزايا ما به كل المروم من به يحوي البرايا من عطايا ذي المزايا ما به كل المروم هل لخيري مثل ما لي من سروري منذ قلبي منه في حب سميم هل لخيري مثل ما لي من سروري منذ قلبي منه في حب سميم laa araa shay'an ka xubbi shayxi xatta innani axbabtu xubbi fi lxadimi laa araa shay'an ka xubbi shayxi xatta innani axbabtu xubbi fi lxadimi xul liman yabxi li shayxi bamba nidda laa tuxaawil rawma ijaadi lcadimi xul liman yabxi li shayxi bamba nidda laa tuxaawil rawma ijaadi lcadimi إنه الفرد المجلي شمس فدل نعمة الوالي لنا بحر الحلوم رحمة الرحمن للخلق جميعا حاضرا أم خائبا داوي السقيم رحمة الرحمن للخلق جميعا حاضرا أم خائبا داوي السقيم عاش للمنان عبدا وخديما للنبي العيل من نب السعيم عاش للمنان عبدا وخديما للنبي للنبي العيلم الندب السعيم ثم عنا غاب مربيا كريما عند مولاه بجنات النعيم ثم عنا غاب مربيا كريما عند مولاه بجنات النعيم والسلام عليكم ورحمة الله واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم